la société civile wax ma société civile ñan la mais mën loo wax société civile te identifié loo boo ne nee ne ayca da nga naan mii dafa ñool xees nga ne Pape Moussa Matar nii la mel ñu ne Ndeye Dimbe mooy ki sol lu werte li mais yow identifié société civile en 2010 ku la waxoon société civile nga ne ñii la wax ma société civile la société civile aujourd'hui se résume en deux organisations et pas plus am na ñoo xam ne ñi ba 2016 ils étaient dans les partis politiques ceux qui ont échoué en politique pendant 30 ans 40 ans 50 ans sont devenus dans la société la la aw nga so tu vois que dire man war naa dem société civile mais man société civile bu ma dem mm. ñu ma dàq wala de pas Matar société civile ku indépendant ku neutre koo xam ne da nga war a atte mm. wax dëgg mais man boobu bu ma ci demee ñu war ma génne Uh-huh. il n'y a pas de société civile au Sénégal une société civile la seule que je connais aujourd'hui wax nga ko léegi yow yaa ne professeur Baba Babacar Gueye teel na alerté mais ñu ko saaga politique yi ak ak presse bi donc société civile moo amatul il faut la reconstruire au tout de nouvelles entités de nouveaux jeunes de nouvelle génération noonu la ñu war a recomposer les partis politiques avec des des des une génération naissante. d'accord. oui uh-huh. professeur. Pape Makhtar ah, dama xaaral Pape Makhtar intervenir euh, après waa ñu joxaat euh, professeur très rapidement ñu joxaat euh, président. plus tard déjà société civile moo am léegi mais société civile amatul. <laughs> société civile. ah bon ok si si adverbe bi. Euh, voilà moom moo am mais société civile moom yaakaar naa ni yaakaar naa ni bëreetul maintenant euh, li ñuy wax nii c'est-à-dire euh, je parle sous le contrôle du professeur en démocratie yaakaar naa ni le mot chef dañ ko si dañ ko exclure. munoo nekk chef. mënoo ñëw nekk ci démocratie ba noppi ngay raisonner en termes de chef ay chef de l'opposition chef de lii wala chef de là loolu yaakaar naa sax dafa nekk en contradiction ak valeur yi nga xamante démocratie da koy da koy prôné mënuñu ji par exemple dinaan euh, am nañ sañ yu wuute dañu war a jël opposition wutal leen kenn koo xamante ni mooy doon seen chef boo leen waxee exemple yu ñu lay jox mooy Guinée ak ak fi nga xamante mooy Mali mais Mali gis nañ ko lu fa xew ba jëlee ki nga xamante si la imam bi ñëw ba après ñu bëri reconnaître ci moom ba lii fa xew mujj faa xew donc je crois que loolu sax c'est dangereux pour une démocratie parce que bu ba jël benn personne identifiée en tant que chef de facto ki nga xamante ne moo remplacé ki nga euh, ce qui s'est euh, passé avec Soumaïla Cissé au Mali gis ce qui s'est passé avec Seydou euh, Dalein Diallo donc moo tax ñuy laajte ban importance sax tey xam nga ce genre de débat Afrique kese nañ koy nañ koy posé parce que ay chef de l'opposition amul benn njëriñ mm. te Grande-Bretagne boo déggee moom kese moo ko am yaakaar naa ci démocratie yu mag yi te Grande-Bretagne sax anti démocratie donc am na yoo xamante ni bu ñuy wax waxu Mali ak ak jël benn nit identifié ko comme ki nga xamante ne mooy chef de l'opposition ñeneen ñi nga xamante ne dañ nekk ci opposition bi mën nañu jël seen ambition ñu ranger ko def ko ci tiroir parce a jàmmaarloo ki euh, président de a nekk candidat ci élection maintenant euh, baromètre yu ñuy jël xam nga présidentielle euh, président kenn dematu fa candidat kase gars yi coalition nañuy dem te coalition électorale taxul ñu gëm la mën nañu dem ànd ak yow parce que élection yi nii peut-être yow nañuy jàpp ni ci candidat bi wala ci période bi yow yaay le meilleur profil mais waxuñu dañu ànd ak yow dañuy épouser say idée wala dañu ànd ak say li nga xamante ne koy prôné donc est-ce que war nañu mën a basé wu ci li nga xamante ne ay ay élection yi nga xamante présidentielle pour mën a kii moom moo amoon score bi alors que score ba mu koy am jël na trois personnes du droit a néewle li nga xamante

xamante yi nga xamante ni dañ koy dem ñu fexe ba fichier yi ñu teel jox ñi nga xamante ni ñooy jongante ñeneen ñi nga xamante ni aussi dañu war jot seen carte ñu jot seen carte ñeneen ñi nga xamante ni dañu jël ñu jàppee leen opposition de salon parce que tey jii ni nga waxee sànq y plusieurs oppositions am na opposition boo xamante ni di nga ci pétrole bi dégg leen ci gaz bi dégg leen feneen ak feneen bu inondé nga dégg leen mais am xamante ne tey jii mi ngi mi ngi ci euh, mi ngi France ci hôtel neex yi ci rafet yi bu ñu ñëwee mooy veille des élections ku dee ñu dem tàggee ji la ku am accident ñu dem masawu ji la ku am problème ñu dem fekk ji la te pourtant dañuy toog pendant deux cent wala trois cent et quelques jours du ñu ñëw Sénégal faut que ñu dem ci benn élection wala euh, à un mois wala deux mois des élections wala année électorale ñu doog a ñëw Sénégal donc yooyu yëpp yaakaar naa sénégalais yi xam nañ ko te te te am nañu cette maturité ba mën a ràññee li nga xamante ne mooy askan bi actuellement la nañ soxla donc opposants yi tey euh, waruñu leen sax di waruñu sax topp. état bi ci li nga xamante du ko bëgg non seulement divertissement la mais aussi daf nekk di discrédi discrédité li nga xamante ne mooy opposition bi te ñoom wax nañ ko war nañ koo mën a bañ daanelee fenn rek euh, nee na parce que aussi tey euh, lii ñuy wax nii yëpp lenn rek lay posé mooy ñi nga xamante ne dañuy politique sànq maa ngi koy wax ñi nga xamante ne dañuy politique bu ñu ko defee conviction bu ñu nekkee dañuy xalaat ay ay ay ay calcul politicien yaakaar ne bu ñu faloo dañuy def ay schéma parce que boo leen gis président bu ñu nekkee ci opposition bi dañuy fexe ba booloo falu jiital Doudou Wade bu ñuy demee ci pouvoir bi ñu fexe ba Doudou Wade moom yàgg fa seen avantage ak seen privilège di mën a continuer di wéy à aucun moment lu gën a bëri si ñoom du ñu xalaat askan bi te loolu dafa nekk loo xamante ne lu doy waar la parce que tey dañuy naan dëgg la homme politique si ñun nañuy jógee mais homme politique yi nga xamante ne si ñun nañuy jógee bu ñu demee ba ñuy naan dañuy bëgg jiite war nañu mën a fexe ba jukkoo yu bon yi ñu jukkoo ñu bañ koo jël war nañu li nga xamante ne ay taar la yu société bi li ñuy wax ci politique yi ñoo jege Macky Sall mooy affaire trahison yi ñuy wax ak euh, euh, kii. Euh, lan lañ koy tuddee sax nga jóge fii dem fële transhumance yi ñuy wax nii yëpp tey jii problème de valeur dafay posé mm. est-ce que waruñu toogaat wala yéen ñi nga xamante ni def politique nit ñi di leen xool ci télé jàppe leen ay exemple parce que ay père de famille ngeen am na aussi ñoo xam ne leen di gis est-ce que waroo leen toogaat seen biir ngeen waxtaan ba fexe ba en de cohérence waxuma yow en tant que yow mais yow au sens impersonnel Sall moo ko gën a xam. ndax wax na ko fi en discours am ba muy nekk 2008 ba 2012 c' était ça. c' était de dire que ni li nga xamante ni mooy dëgg dañ ko war a dooleel li nga xamante ni du dëgg dañ ko fa war a jëlee. Mhm. opposition bi euh, ay transhumance yooyu yëpp daf ko doon da doon xeex. Mhm. mais lan moo tax tey jii moom au pouvoir li lépp lu mu doon bañ tey jii da ko accepté est ce que tamit. yow boo xëyee nekk président wala nga nekk député doo réew seen i seen seen seen personnes yi nga xamante ni moom nañu doonoon dañuy wax nag wolof day wax ni naan euh, ju wutkat du ju te loolu yaakaar naan fa la danger bi commencé. Mhm. alors euh, maa ngi ñëwaat léegi ci yow. xam nga dafa am benn benn étape boo wane léegi ne est-ce que d'accord nga qu'il y avait une société civile de 98 97 99 2000 ba 2012 du d'accord nga ci. Mhm. du d'accord nga ci. léegi il y a une société civile. Mhm. mais c'est parce que a un responsable. qui n'a pas fait ce qu'il devait faire et c'est le président de la République ñun xëccoowuñ chef de l'opposition xam ñu lu ñu bëgg. Mm-hmm. qu'on nous donne nos droits. Mm-hmm. la révision du procès de Karim Wade et qu'on fasse des élections transparentes qu'une opposition s'oppose et laisse le trouva le, le, le pouvoir diriger. diriger absolument loolu la ñu mës a wax ci loolu lañu ma nekk bu fekkee ne nag da nga bëgg a da nga bëgg dem dimbali ji gouvernement bi sur des problèmes particuliers nga def ni ñu defoon nga ne je vais aider le président de la République sur cette question là ba pare daal di ne lu mu def c'est sous notre responsabilité sauf le FPE ñun loolu la def bi ñuy génn dañu génn am na ñoo xam ne bi ñuy génn bugguñu ñu ne boo leen bëggee ngeen toog mais ñun dañuy génn dañu dem élection dañuy dem natti suñu bopp ñun dañu gëm élection dañu gëm opposition maintenant xam nga bi ñuy bind chef de l'opposition il faut nga xam ne la revendication ñu ngi ko jëkk a posé je pense dans les élections législatives de de président de de 83. yàgg na ñu bàyyi fa chef. dafay évoluer mais chef aussi euh, ça dépend ci li nga ko jëlee boobu temps y avait y avait le chief opposition euh, ci biir Canada. amoon na ñu ngi am ba léegi chef d'État. amoon nañu ba bërka démb avant la constitution di changer amoon nañu chef de l'exécutif mhm. moonte woon chef de l'opposition mën nañu ko wutal beneen tur mais da ngay dafa am lu ko sampoon loolu ko sampoon nag moo tax maintenant parti attention très souvent à l'élection présidentielle il y une coalition de parti pour soutenir quelqu'un oui. coalition de parti fal fal front pour l'alternance pour dimbali Abdoulaye Wade la woon absolument mais coalition soppi pour dem aux élections législatives am na ñu ñëw dañuy ànd ak ñun am na ñoo xam ne sax dañu mës a proposer ñu changer ñu ne leen déedéet local yi jëm nii depuis deux mille dix neuf wax nañu ne dañuy dem sous notre bannière et sous mm-hmm. mais du bañ bañu ñu ko ànd ak ñun. mais da ngay ñëw ànd xam nga léegi lan moo war a am. Mm-hmm. Pape lan mooy doxal démocratie bu ñu bëggee sur sur la modernisation des de parti. Mm-hmm. ñu exiger les partis et aller aux élections seuls. absolument. sans coalition. absolument. très bien alors oui. Ah. absolument d'accord cher Omar. man Olof Ndiaye nee na ma mbaam gàtt na waaye ci ci gétt gi la bokk. man sa papa dama foogoon sax ci débat bi sooy seet opposition dafa bokk ci ci ci ci ci démocratie les deux poumons d'une démocratie l'opposition et le pouvoir mm-hmm. sénégalais déterminé nañ ba pare bi ñu falee ne kii mooy gouverner na dem gouverner ñii ne ñii nañ opposé wu ne ñii dem opposé mais xam la moo fi professeur y a une opposition couchée y a opposition dormante une opposition de compromis une opposition de salon yaa a même une opposition boo xam ni moom il est confiné dans son mutisme Macky Sall lu ko nit wax tooñ ko il est dans son rôle te toogoon na fi mu ne mokkal na politique Abdoulaye jàngal na ko mokkal na mais tey bu ko neexee ne am na agrégation politique ah parce que président Doudou Wade Abdoulaye bi muy génne statut opposition Moustapha Niass ak Tanor Dieng ba ci doon xëccoo tey Abdoulaye Wade ñaar ñoo ñoo doon xëccoo mais tey fii li ñu remarqué c'est comme il a jeté un os à ronger ñoom ñu ciy ñu ciy xëccoo. Euh, li nga xam ne nag moom moo am son génie politique wanewaat na ko. opposition moo fi toogoon ne ko doo parrainage mu parrainé opposition bi moo fi toogoon ne ko kani Karim dina nekk candidat mu tëj exilé opposition bi ñoo fi toogoon ne taxaw xalifa mu génne ci ban baromètre bu sérieux la ñuy nattee sax ni kii moo jël raw gàddu. parce que élection présidentielle yoo xam ne ñii parrainage nga leen téewe nga teg leen fële man wax naa ko PDS yor na benn appareil politique PDS amul candidat bon soo jëlee nga keneen nga jiital ko tey yaa ngi dégg ñooñu Ousmane Sonko yi ñu ngi commencé neex ñoom kenn nekkul seen chef. Mhm. ñafar ak Idi ñoo ngi naan la Idi parce que élection yi passé il a une grande coalition il est sorti deuxième Sonko am na ay voix mais sooy seet loolu yëpp. am na benn vide boo xam ne Grignon ku nekk am nga ci loo jël mais le vrai débat mooy sénégalais nekk ci jafe-jafe problème mu ndox déggoo opposition sénégalais nekk ci yeneen problème à chaque fois pour des raisons politiques et électoralistes ci lañ leen di dégg man dialogue bi li ma ci waxoon dès le début théâtre politique ak seen questions essentielles tu veux voilà, dire que voilà. on ne sent pas la présence la présence de l'opposition et moo tax ma ne y a une opposition dormante une opposition confinée une opposition couchée benn opposition moo am su mm-hmm. fekkee yaa ngi analyser la scène politique benn nit ngay gis muy jouer rôle opposition muy Ousmane Sonko en dehors de Ousmane Sonko vide boobu créé wu société civile amatul yam amatul résistance bi waroon am moo tax mbedd mi jóg mbedd mi la nga gis ay activistes tu vas voir les sénégalais léegi dañuy dem solliciter Guy Marius Sagna kaay suñu conférence de presse kaay def suñu ah, nangam nga ne. Euh, tu as dit que benn opposition ngay gis mu di. Euh, ma ne Ousmane Sonko fi mu toll nii booy wut opposition fii actuellement Ousmane Sonko la ñu gën a gis mu actif. sur le terrain PDS c'est un grand parti seen candidat mu ñëwagul mu ngi fële bitim réew ah président Doudou Wade yëngal li ñu doon yëngal nekkoon moteur politique gu euh, jeu politique gu Sénégal toog nañ Idrissa Seck boobu ba léegi waxul daane daa noppi ñeneen ñëpp déggu leen rarement nga ci dégg ku yëngu. léegi mais y a Thierno Alassane Sall y a waaw waaw waaw a beaucoup de non je veux dire man damay damay joxe exemple rek su ma joxe exemple bu ñuy jógee ci élection présidentielle yi natt ko le PDS n'avait pas eu un candidat le PDS c'est un grand parti yor un appareil politique boo nattee baromètre nga ne kii moo jël deuxième te dindi nga PDS dindi nga Khalifa Sall pour man amul benn crédibilité mais soo xoolee sur la scène politique actuellement ki ëpp présence politique c'est Ousmane Sonko ça je le dis beneen bi li nga xamante ni moo ëpp njëriñ ëpp fulla Macky lu ñu ko wax tooñ ko ànd leen ngeen nekk benn wut benn liste su ngeen gañee ëppale ay député imposer pouvoir imposer rapport de force am seen premier ministre dañu dem tasaaro ñii jaar ni ñii jaar na le Macky Sall avantage bi mu amoon Ablaye Wade 2009 toute l'opposition s'est réunie nekk benn pôle pour mën a gañe ay élections locales ñu am seen bennoo tey opposition bi déjà ci benn affaire de statut de l'opposition kii jaar na ni kii jaar na ni kii jaar na ne bis bu ñu demee position local waa ji la mu bëggoon am na ko diviser pour régner moom toogul si kenn ñoom ñoo fa toog ñoom ñooy daje ñooy mbëkkante opposition bi mooy opposé wu ci opposition bi Macky Sall nag man gëm naa ni ah li ma doon wax si moom boole wu ci wax ju bëri mu ngi déroulé ay schéma am di ko teg te li Omar Faye wax sànq ne opposition bee koy dimbali mën nañ ko dimbali te yéeguñu sax ñu ngi koy dimbali parce que ñoom ñoo ko yombalal niñ ko ko yombalal rek bu ñu tasaaroo seen biir créer ko pôle yooyu on va aller vers des te Macky saa yu dem élection bis bu jekkoo lay dem élection bu ko leereen bu demee élection du am lu mu bëgg. Mm-hmm. parce que calendrier électoral moo ko maîtriser. Mm-hmm. moom mooy xool nu mu koy tracé mooy xool kan moo ciy bokk ak ku ci dul bokk moom mooy actuellement le maître du jeu politique man loolu laa amoon lu ma ci wax sama analyse. nen ah da ngay jox preuve. oui kooku il faut ñi ñi xam ko Sénégal il faut ñu revenir at cest la nostalgie de 2012 Wade n'a pas été combattu par un parti politique c'est la société civile c'est les partis politiques c'est les mouvements citoyens mmh. c'est les organisations syndicales c'est tout le monde qui se sont mobilisés pour faire face à Wade kooku il faut nit ñi di ko xam moo tax ñu doon sentir une société civile alors que c'était une société civile qui aspire demain à avoir des responsabilités étatiques. waaw ah, léegi ñëpp a néew. attends xaaral moom laa lay wax dañu toll woon fu xamante ne dañu yaakaaroon ne ñii xeex bi yëpp li ñuy def réew mee tax ba ñu pare ba ñu joxee ndomb tànk dañoo dem foofu le peuple bi di amee déception. Mm-hmm. dañu yaakaaroon ne dañuy am constance dans leur démarche constance dans leur combat. mais ñoom ñëpp après ñi nekk nañ ministre ñu jox nañ ay responsabilité ñu def nañu leen ñu noppi am peuple bi nag amatul fenn foo xamante ne mën nañ fa dem pour jooytu seen problème mais PDS aussi seen choix c'est normal un parti qui a combattu man mii ma bokk si man kenn kenn bokk ci damay xëy jékki-jékki rek attaqué PDS du ma ko def dañuy bàyyi ñoom toog parce que ñoom lañ faloon ñu gis situation ne war nañ mën a améliorer ñu toog ñoom. ne comme ñun ñun ñun ngeen xeexoon nañ toog seetaan leen ak ñi fi Mmh. c'est tout à fait normal hmm. qu'on le veuille ou pas c'est ça la réalité maintenant ñoom seen bopp nguur gi xam nañ bu baax ne parti bi leen mën a créer c'est le PDS xam nañ ko hmm. maintenant lépp lu ñu mën a def pour distraire ko ko dina nekk dans cette logique et logique boobu réussir nañ ko hmm. tey xam nañ ne tey parti bi nga xamante ne dans le Sénégal de la profondeur boo fa demee xam ne ñoo fa nekk xam nañ ne PDS la euh, te yooyu moo am s'il y a que deux partis organisés dans ce pays c'était le parti socialiste et le PDS. moom ñooñu nag bu ñu demee tey parti bi nekk au pouvoir tey c'est un parti qui n'a que 10 pour cent de l'électorat sénégalais tout ce qui reste c'est une coalition qui était à la base maintenant il faut qu'il divise et Macky da ko réussir depuis bu ñu changé carte d'identité avec les 50 milliards de iris compresseurs suñu kanante yi amoon la moo la moo la moo si nekk suñu fichier électoral bi lan moo ci nekk bañ ciy wat bañ ciy defaraat lan moo nekk ñu defaraat ay référendum def lu nekk ci foofu la appuyé wu pour mën a taxawaat amaat dëgër laay pour am un deuxième mandat te boo gisee jusqu'à présent après di nga fa dugg xam naa ci élection li tax ñuy reculer di reculer am na lu tax Macky bu amee doole day dem. bu amul doole day taxaw. xoolaat nan lay doxalee. léegi nag chef de l'opposition bii maa la ko wax tey et je il faut éviter que ce qui se passe au Mali repasse au Sénégal il y a une crise de représentation dans ce pays c'est-à-dire souvent on peut avoir quelqu'un boo xamante dafa nekk fële di casse rek ñëpp topp et créer une désorganisation pas une organisation ce qu'on a réussi en 2012 il y avait une organisation à travers benn pôle or fi ñu jëm bu ñu defoon ndànk dañuy jékki-jékki kenn créer benn affaire rek ñëpp topp ko dem mu am désordre te loolu il faut l'éviter te pour l'éviter mhm. Mhm. mooy moom xam ne ne chef de l'opposition bii bu amee tey ba ñu teg ko ba mu kontaan s'il aspire à avoir un troisième mandat du wax comme ni amoon a élection bi Omar lan mooy lan mooy lan mooy s'il te plaît crise de représentation cest représentation mhm. mooy nga toog comme ni di ko am te di ko mënul yor réew mënul yor réew waaw ana représentation yi député yi yoruñu ko wala dañ fi nekkul non ñii fi ñoom bu dee bu dee majorité bii. ah nekkuñu fi newuñu fi. Ah, bien loolu laa bëgg xam rek. waaw kay. Euh, justement sànq dafa am loo wax euh, professeur nga ne euh, kii di président la république d' ailleurs wax na ko nga fàttali ñu ko mu di réduire l' opposition à sa plus simple expression est ce que tey jii tamit quoi qu'on puisse dire opposition bi facilité wuñu ko la tâche pour que mu mën a def li mu wax. waaw parce que da li xew ci ci réew mi mooy xew ci parti mooy xas parti politique yi de parce que ñàkk gëm sa bopp ñàkk ngor ñu lay korom ngir xaalis moo na ci réew mën na ci parti politique yi xam nga problème Sénégal benn rek la c'est-à-dire des gens dignes yoo xam ni xaalis yëngalu leen kuy wax pour réew mi baax ku dul wax télévision pour ñu woo ko jox ko poste looloo manqué Sénégal am na nag waaye bëriwul te faille boobu nag le président Macky Sall di exploité. Mm-hmm. mais kan kan moo des PDS léegi évidemment bu fekkee ni pourriture yi dem nañu c'est encore mieux pour ñu mën a réorganiser wu mais ñaati nit laal fi mën a lim ñoo xam ne jege nañu Ablaye Wade lool dem nañu problème de dignité ñàkk sa ngor ñàkk bëgg sa réew lii nag moo tax tubaab bi ñu sa respecté ñoom ñoo ñu gën a saay-saay fuuf bu ñu yàq yàq yàq ba yem benn limite ne su ma dépassé li sama réew day yàqu te sama réew moom sama bopp c'est ça moo xew réew mais ñun on est prêt à ba jaay sa yaay pour jàpp xaalis moo tax amuñu ñu bari amuñu benn conviction koo xam ni mi ngi fi depuis tàngu Senghor socialiste ñoom mu dugg PDS moom mu dugg keneen mu dugg jusqu'à présent kon lan mooy si idéologie lan mooy sa philosophie am na xam ne sax mosuñu defal dara seen gox ils sont là depuis tàngu Senghor ba tey mosuñu def dara seen gox mais loolu yëpp lu juge dem wax nee na le peuple am na ci responsabilité day am ñoo xam ni li ñu gëm bariwul am na ku ma waxoon ni wax nañ fi affaire Khalifa Sall nit ñi di xeex mais buntu kër Khalifa Sall ku fa gagné Macky Sall. Uh-huh. Uh-huh. paradoxal. voilà. Uh-huh. wax wax wax wax ñu wari la nga noppi. <laughs> lu ne xew na xew na fi kenn waxul dara. opposition d'accord même peuple aussi dafa war ñu wooyee marche nga bañ après nga dogal nit ñi tontoo même cent francs ma amee pass géej wax xam nga réew mi doxul. mais mais peut kii professeur est-ce que nekkuñu aussi di jouer le rôle de du pouvoir parce que tey jii actuellement dañu bëgg jël opposants yi. Euh, tuddee ko ñi nga xamante ni ñoo nekk ci dialogue bi mooy ñu dem dialogue. alors que yaa ngi koy wax léegi juge dem. capitaine Dièye. coalition Sonko bi euh, jot na. da nga jël ñoom euh, Thierno Alassane c'est-à-dire am na ñoo xamante ni ñëpp xam nañ ni. opposition radicale nañu ne. waaw déjà ñoom kenn du tudd bi nga xamante ni mi ngi si dialogue bi. wala benn Omar Sarr bu ne si dialogue bi ñu tuddee ñooñu opposant waaw ñooñu bu ñu ñëwul ñu ni opposition bi ñëwul. te pourtant am na ñoo xamante ni ñoom Babacar Diop FDS ñi ngi ñëw chaque jour ci manifestation information yi. ñu ngi dem di euh, difficulté sénégalais ñu ngi koy dem di ko di ko di ko partagé di partagé seen souffrance te pourtant ah. day mel ni euh, bu ñuy wax ni amuñu alors que ñoom ñu ngi sur di di continuer le travail lu xew. lu xew parce que dialogue mooy. am nañ opposition bu graaw ñu bañ affaire bi dégénéré ñu toog waxtaan négocier. mais mais professeur mais qu'est-ce qui se passe. la moo tax avant élection présidentielle yi. dialogue wuñu jalagawuñu ci processus électoral. jalagawuñu ndaw ñu jot ñu seen carte d' jalagawuñu ci ay contentieux jalagawuñu ci pétrole mu jël ay dogal jël ay décision ba fii. ba élection jeex après ñu ne léegi dialogue. sa oh. ça man sam sam problème mooy euh, lañ fay waxtaane ak yooyu mooy question yi nga xamante ni waa ji mu ngi dérouler stratégie moo tax je le dis et le répète Macky fii lu ko nit wax tooñ ko ñu dem jalo dialogue loolu leen ci fekk nañu jël. mooy cette opposition là qui accepte d'être divisée lépp lu fi mën a am ëllëg moo tax sànq bi nga xam koy yombal troisième pour mu dox seen kaw te il le fait bien et ça moom su ma ko gisoon tey ko tàcc na ko félicitation pour ton génie politique parce que Macky léegi soxlatul muy wut xeer di ko dóor waa opposition bi na toog seetaan leen ñoom ñu dóorante xeer seen biir moom mu dérouler son jeu parce que actuellement il est le du jeu il travaille pour lui lu nga waxoon sànq rek am na opposants yoo xam ne Macky Sall la ñu liggéeyal de. dafa bëri sax. mais man ma je ne mais ñooñu ils ne représentent plus rien. alors bon d' accord mais dafa ñaaw baal ma rek. xam xam nga il faut que ñu am. Mhm. ay nit yu digne. te lu président nii ku wax ci marañ dàq la ministre yaa war a na ko président attention yaa ñu jiite waaye yoon moo nekk sa kaw nekk suñu kaw mhm. liberté d' expression waaye ñun ñëpp a ne nem kon nangu nañ loolu. lu tax ngay nangu doomu aadama tëj sa gémmiñ pour lan. dañ ko waroon wax ne président ñi nga dàq ni la nga waxoon nañu wax te moom la ñu wax ñun ñii. waaye ñoom ñëpp ñu ngi teg nokk kii comme des gens dociles te yoon nee na il faut désobéir lorsque l'ordre donné est manifestement illégal te li mu wax ne si illégal mandat moom mënoo ko ndenkaan la kon mënoo tere kenn wax ci y compris des gens parce que sont d'abord des citoyens. lii peuple bee ko nangu rek waaye warul jàll. président pour terminer euh, chapitre bi lan ngay euh, dénk wala lan lañ mën a jàpp par rapport ak euh, opposition bi. ak opposition bi. très bien euh, euh, pour fàttali Omar mhm. man ragal naa ni dafa am koo xam ne dañ ko fal pour mu régler problème mu sénégalais yi. ndox mi ak inondation bi ak pandémie bi ci la bokk. Uh-huh. France waxaguñ ne Hollande defoo dara ci Covid 19 waxuñu ne que accident yi am ak lakk gi am Californie woowuñu Kennedy woowuñu Obama il ne faut pas demander à l'opposition des choses qui ne sont pas son rôle. rôle opposition mooy se préparer à exercer le pouvoir et critiquer ce qui est mauvais ba pare accepter ce qui est bon. Uh-huh. comme nag li ñu amoon de permanent te mu baax depuis Mathusalem la société civile est devenue une société civile ba nga xam ne les opposants yi doon xeex contre ñun comme ni mu ko waxee léegi dafa am lu taxoon ñu def ko cela veut dire que tu viens nous rejoindre sur ce que nous avions dit en 2012 nous étions dans un complot international. il faut ngeen nangu ko nag léegi. Uh-huh. complot international bi dañuy dem ba Union européenne génn ci dugg ci ñu wax ko ambassadeur des États-Unis ñu woo ko ba mu ñëw ñu ne ko bu fekkee ne sa doole moo tax président ne ko def bu mooy nga xam ne man leen ma yeew ci lu ma du ma def li leen neex. ñu bëgg ñu imposer benn co benn benn coopération unilatérale avec la France ñu bañ Sarkozy toog fa ne dafay dindi les bases françaises françaises yi nekk en Afrique. Abdoulaye ne ko na nga ko jël ci 4 avril anamu tey anañu on a remis tout à l'ordre ancien ngoonte boon bàyyi leen léegi dafa jot nag léegi bi ngeen gisee ba seen bët fees ñu taxaw nag seet naka la ñuy def loolu mooy problème alors opposition bi ngeen ne PDS waxul mais Abdou Mbaye dafa am parti ñaata nit moo wax hmm. ñaata Berul Thierno Alassane am na parti ñaata nit a wax. Berul seen nit ñi wax dañuy ëpp nit ñi wax ñun. dañu ëpp présent dans les télévisions. dama leen di laaj. ñaata yoon ngeen gis Thierno Alassane Sall man ñaar yoon laa ko gis. bi mu taxawee assemblée nationale ñu posé question mu ne contrat Petro-Tim baax na dégg naa bind na livre liiru ma ko mais dinaa ko seet mais image boobu laa mujj gis. Mm. en cinq minutes a tontu ba Moustapha Niass na ko sa tontu day na jeex na. am na wala amul. Uh-huh. dama leen di laaj. vidéo yaa ngi circulé d'ailleurs. comme vidéo yaa ngi circulé jàmm mm-hmm. léegi Sonko. kañ la gëj a wax. parti ñu ngi wax ah. dans plusieurs domaines. ils ont été à la différence de à la à la à la à, au combat sur l'affaire de Ndingler. et je salue mais ñun ñaata nit ñoo wax. mais mais président Doudou. Euh, PDS bi ñu xamoon moo nekkoon PDS bi nekkoon moteur opposition PDS bu agressif nekk sur le terrain en présence mais on a remarqué que depuis Abdoulaye Wade ak Macky Sall bi ñu juboo ba tey PDS daal dafa gën a sedd lool lool nag lu ma remarqué la nit ñi remarqué la ñu laaj la ko aussi encore yaa ngi def amalgame waaw bu ñu def amalgame Macky Sall ak Abdoulaye Wade waxuñu ne juboo nañu dañ ne daje nañu daje nañu waaw attends kon du juboo la précision mooy daje nañu waxtaan nañu Abdoulaye Wade seeti na ko. Hmm. Macky Sall dina ko seet foofu lañ yem. foofu lañ yem lan moo tax ñu daje dañu xëy rek daje non mais ñun xamoon nañ dinañ daje ah Abdoulaye Wade waxoon nañ ne Macky Sall je vais te forcer à à rencontrer l' opposition. mais rencontrer de opposition mais c' pas la vraie opposition. donc ñun on est présent wala on n'est pas présent. Aïcha professeur on est présent sur les. non je suis là même même les manifestations sax ñu fay def ay militants PDS génnuñu si. donc ça c'est pas un débat. non non non même à un moment donné. lors des élections législatives. bi muy wax ne bu ñu dem élection ñun ñëpp nañu bokkoo dem ministère de l' intérieur. c' est l' opposition elle même qui avait refusé les actes de l' opposition. ba ñuy dem ne leen élection yi bu ñu ko demee nii dans des conditions pareilles. nous allons gagner c' est des acteurs de l' opposition. ñoo génn def sorti ne du ñu dem et pourtant li mu waxoon ñëpp tey gis nañ ko. man c' était là. da nga sauté benn étape. vidéo bu mujjee def rek. da nga sauté benn étape ñoom dañ ko ne dellu sil ñëwal mu préparé ñun. Mhm. pour ñu dem élection. législative heureusement que mu ñëw heureusement que mu ñëw parce que bi mu ñëwee ne doon on changé est-ce que bu ñëwuloon dinañ am lu ñu am. Eh. Uh-huh. ma leen di laaj. Uh-huh, la. waaw ngoonte bu ñu bàyyi woon ñu ko doon jiite nga xam ne ñu ngi woon ci ay combinaison ba fii fu ñu jëm. Uh-huh. maintenant la crise de la représentation il faut ñu ñëw ci c'est parce qu'il n'y a pas d'assemblée il n'y a pas de député. crise bi jeex na Aïda Mbodj moo fi posé question d' actualité ministre bi war a ñëw tontu ko pour cinq minutes Decroix pour cinq minutes amul fan ngeen gis assemblée daje ne dañuy wax ci Covid 19. poser des questions. faire des enquêtes. yéen ko gis dans tous les pays du monde. actuellement. c' parce que nous avons une assemblée qui ne peut pas marcher parce que la tête est. kan mooy tête bi Moustapha <laughs> Heureusement que tu l'as dit. <laughs> Alors, oui, donc il faut que d'accord ci benn affaire qu'est-ce que l'opposition doit faire Justement. Une opposition mm -hmm. c'est une sommation mm-hmm, d'agrégés, mm -hmm. Opposition ay nit la yoo xam ne dañu trois questions fondamentales ñu ànd régler ko après séparer wu. Mm-hmm. mais on ne peut pas avoir une opposition unanime. mënta Opposition luñ ci wax bind ko téere. ñoo ko indi Sénégal ñoo ko indi en Afrique de l'Ouest si je peux dire si on me permet à chaque fois dina am ñu bañ ñu nangu mais l'essentiel bu ñu dajalee xeex ko mais bu fekkee ne ku nekk da nga ñëw ak sa prétention ak sa cravate ak sa diplôme ne am nga parti créé nga ko barka démb am nga neuf personnes parti bi yaay chef bi te ko parti bi yaay chef bi te kat dañuy wax naan dañuy démocratiser de mais parti buy judd rek nga xam ne kan mooy kan mooy kan mooy nekk chef. absolument waaw. léegi bu fekkee ne nangu nañu dajaloo reconnaître nos erreurs et nos fautes mhm. parce que des fautes et des erreurs se commettent amul kenn koo xam ne kii mën nga diriger état pendant un an en toute impunité ay nit lañu rek mhm. mais par contre nit mën na ressaisir bopp ñu defaraat suñu bopp gis nga bu ñu ko deful bu ñu ko deful Pape Alé waxoon na ne ku àttuwul di nga àtte donc ou bien on évite ces situations la ou bien situation yoo ñu dugg ci ba mu créé yu di difficulté énorme yoo xam ne dañuy toog ay cinquante ko faj te du faju bu ko defee ñu revenir ñu revenir sur des bases normales. alors on va devoir